فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لي بانا كوني له حمدي بما ستبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له شكري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما أطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالقا ورا مولانا محى الفرا والذحذح الفتانا وذكر حل حكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لأوقط بي ورمشانك وذان لي عند الغدا ما شانا لك أوجه هنا إحسانا فقبل إن الفتح صار علمتني الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقران لي وأبتى البشر والجيران كفيتني قوما حووا قسرانا لي تصفي الأمر والجنانا تأبني بلا حنى الجنانا زللت من في البحر قد حادانا والبرية من بالنبي أدانا يشكرك ال sori na toll na fa nga xamante ne nii lanu lanu fa yóbbu Pastef la waaw li li li sëñ Muntaxa doon doon soññe ne nanu góorgóorlu góorgóorlu nag ci li nga xamante ne nii lu xew mooma muy Pastef kon boo gisee lii nii nii ni ci murit di doxee Pastef gu kawe sunu njort gunu sëriñ bi defal mënu yóbbu fii tay ci liggéey bi waaw ci ci ci ndimbalu sëriñ bi ñuy santaat sëriñ bi ci tawféex gi nu am ne fii di ko liggéeyal waaw loolu loolu ak cant la goo xamante ne nii lan lan lan lan lan war a gën a dolli rek ci cant gi mooy mooy mooy gën a gën a xamaat sëriñ bi fi mu fi mu fi mu fi mu féete lim doon ci ñun. waaw gën a gën a gën a góorgóorluwaat gën a jaajowaat ci li sëriñ bi bëgg waaw ndax mbégum sëriñ bi rek moo fi ne li sëriñ bi nangu ak li sëriñ bi bëgg rek moo fi ne ñu góorgóorlu suñu kéem kàttan luñ mën ak luñ mënut bu nu ko defee day daanu gën a daje ak tawféexu sëriñ Tuubaa yi waaw loolu loolu noo ngi koy dagaan sëriñ bi di ci di ci soññ sama bopp di ci soññ mbokk taalibe bi yëpp. dafa mel ne tey euh, dafa mel ne bu leen déggee hmm. euh, mbir mi ni mu demee dafa xaw a yéeme ci yéen ndax dafa mel ne liggéey bi dafa avancé lool lool lool lool mu mel ne Pastef daa feeñ lool ci bés bi comme ni ko waxee. waaw comme comme ni ma la ko waxee euh, kéemtaan googu noonu loolu ku amuk seetlu moo koy gis waaw ku amuk seetlu. mooy gis kéemtaan googu nga wax kéemtaan gi nag mooy Pastef gi nga xamante ne nii sëriñ bi moo la koy defal. waaw ndax ndax du suñu jàmbaar du du suñu suñu doole du suñu lenn lu nu sëriñ bi roof la ndimbal gu nu sëriñ bi defal muy Pastef waaw moo yóbbu liggéey bi fii ndaw ñi mag góor ak jigéen di ci doxee noo xamante ne nii boo boo boo delluwaatee ci ci ci ci ci màggal màggal ga wees da xam gii niñ ci doxee ci liggéey bi gàccaal na bu fi mës a jaar. barki maam Cheikh Ibrahima Fall di santaat sëriñ di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir mu yàgg fi lool te gën a wér barki maam Cheikh Ibrahima Fall ak murid yëpp jërëjëf. maa leen di ziar nuyu ñëpp maa ngi tudd ma Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul lañ ma tuddee sëñ Bamba. waaw lii moom nag yaa ma gën a xam lii moom Baye Fall moom foog ñu sedd seen xol foog ñu naan ci ndox mu sedd bi omo bi nag bu ñu paree moom nañuy sangoo. moom nañuy fóore suñu yére yi moom nañuy yow yow daal yaa ma a leneen lu ci des yëpp nañ ko bàyyi Cheikhul Khadim rek waa moo waral bés bi ndox mi pur gars yi di bale la ñoo ko moom waa bar benn benn rek ku si ne dañ fekk fi nga toog rek ñu jox la la nga la nga la nga yelloo mais mbaa waaw lu sa waay mën am rek mu nekk sa wërsëg rek ñeneen ñi rek mën a xaar leneen ni rek am na leneen luy ñëw mbirum Serigne Bamba du jeex am na leneen luy ñëw yu dul yi daal li fekk gars yi dafay da ngeen ànd ak si affaire en tant que moo ngi ñëw rek ah, bu ñun ñoo ngi fi woon suba depuis suba six six yi matin nañu yeewu ñoo ngi fi boobu ba léegi ñoo ngi fi waaw. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo maa leen di siyaar di leen di ñaanal jàmm Omar Faye laa tudd. ñu gis leen ne yaa ngi ci mbale mi euh, dundee mbale mi. mbale mi xol bu sedd laa ci amee di sant Sëñ Tuubaa di ñaanal Sëñ Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg te wér ci barke Jaalibatu Maraaxib ak Nuuru Daarayni. mbale mi tey ñu gis la nga nekk fii di liggéey ndax nga gisee mbale mi. mbale mi na tey daa gën a ndax heure bii da doon fekk jàll yi fees fii mais jall nekkatu fi sama sareet nga nale dongo yi ma àndal ñëpp day dañuy wër duñu gis fenn jàll mbalit mhm. lépp oto yóbbu nañ yow lan mooy sa métier ci mbale mi. man naka jekk mbale laay mbale laay def sama sareet bi mbale laa ciy def. waaw damay tonni damay tonni di yóbbu ci oto ba di tonni di sëf ci oto yi moom laay def. Mhm. depuis a fi nekkoon. waaw ca suba ba léegi maa ngi fi. suba yaa ngi fi maa ngi sant Sëñ Tuubaa itam. Mhm. damaa xiif mbalit mbalit laa xiif fu mu toll nii. Mhm. kon daal yow luñ la jox rek xeeb nga ko. damaa xiif mbalit fii booy fii naan suba la màggal bu ma sañoon chaque jour ma xëy bale. waaw macha allah bëgguma nit jóge feneen ñëw fii ne fii Touba dafa am mu tàq. ku fi dëkk ku nek ngir jëmi Sëñ foo nekk na set. ba gan gu ñëw bég fu waay gis ndox te man koo dindi bul xaar ñu fay la bul xaar ñu wax la ko dindil te Sëñ Tuubaa tax su mu taxaa yàlla fi yàgg. waaw waaw sant euh, ci fajar ba léegi nag ñu ngi ci mbala mi ci liggéey bi di doxe ndigal rek ak mbégte ak euh, ndigalu sëriñ bi mu nekk liggéey boo xam ne euh, alaaj Baara Mbàkke Falilu moom ci bi mu nekkee xalifa général murit loolu la njëkk liggéey lu Baay Faal yi muy seetal dëkk bi loolu nag moo ñu topp ba léegi ba nga xam ne fu mu te rek suñu yitte juñ mën a am dañu koy bàyyi ñoo def loolu ndax setal dëkk bi setal say bakkaar la ndax fii meloon na melokaan boo xam ne boo fi ñëwoon ci suba euh, sa yaram day daw wante murid yi dañ doon dugg ci biir canal yi di génn mbalit mi di def liggéey boo xam ne mucc na ayib. mu gis ne muy ci àndal. waaye nag xool hmm? lépp loo xam ne mën ngeen ko ngeen def ko waaw lépp loo xam ne mën nañ ko rek def nañ ko ci. ci sunu addiya ak sunu doole ak sunu lépp rek def nañ ko ci liggéey bi xale yi tamit nekk ñoo xam ne man dañ ma yem ndax dama ci gis ay tout tànk yoo xam ne wax dëgg yàlla seen Pastef ak seen aal ni ñuy demee ci liggéey bi mu wën na la ñuy sëriñ bi rek moo leen ñor ak bëgg lu baax ndax lu baax moom mag bëgg na ko xale bëgg na ko te loolu tamit ndimbalu sëriñ bi la liggéeyal sëriñ moom ndimbal la nekkul rek ku tëb tëb. liggéey ko sëñ bi moo lay tànnal boppam andi la ci liggéey bi nga liggéey. xëy na sax léeg-léeg nga gis koo xam ne toll na ci digg dooleem mënees na koo liggéey waaye yow gis xam ne. Mhm. mag gi xaw naa waaye terewul ñëw ànd ak gone yi waaw waaw waaw waaw gone yi nag moom dañ ma soññ lool lool lool lool lool ndax man daal xale yi ñoo ma yem tey sëñ bi. Mhm. waaw ndax seen Pastef ak seen njàmbaar euh, dafa dëgg dayoo ndax dafa am da ngay jàpp na lii xale waru ko xam liggéeyal Sëriñ Tuubaa bu mel nii dafa nekk loo xam ne daal ndimbal la waxuma la ci dëkk bi wante ndimbal la ci doomu aadama yëpp. waaw liggéey bi moom dox na bu baax a baax a baax macha allah dox na bu baax a baax ndax li si ëppoon solo lépp daanaka dañ na muy salte bi ak fetar ñi canal yi li ci ëppoon doole lépp daal wax dëgg yàlla dem na. Mhm. waaw sant nañ bu baax jërëjëf.